waaw projet bi euh, li tax sax mu jóg mooy dañu gis ni euh, état yi suñu état yi ñu ngi def effort yu mag a mag a mag a mag pour entrepreneuriat féminin ak employabilité des jeunes ñun dañu tànn thématique yooyu rek mais thématique yi bari na gis nga boo jëlee par exemple affaire Covid conseil scientifique boobu mi ngi ci affaire santé ñun ñu ngi ko commencé ci affaire employabilité ak entrepreneuriat depuis novembre 2019 donc commencé woon nañ ko avant Covid bi di ñëw léegi li nga xam ne moom lañ gis mooy que Euh, programme yi nga xam ne gouvernement yi ñu ngi koy teg pour tontu loolu programme yooyu lu ci bari duñ ko teg ci ay affaire connaissance scientifique yu dëgër ñun loolu la ñuy liggéey pour que gouvernement yi ak chercheurs yi gën a jegeyantoo pour que suñuy mettre en place des programmes programme yooyu ñu teg ko ci loo nga xam ne nii du deñ loolu mooy tax programme yi am impact moo tax programme yi indi ay résultats yu gën a bari moo tax programme yi tegu fi mu war a tegu loolu suñ ko yokkee naam gaa ñi ngi koy def mais dañu yaakaar ni bu ñu koy yokkee ci la ñuy gën a am ay résultats ci la chômage bi gën a wàññeeku ci la jeunes yi di gën a am confiance pour liggéey ci seen biir réew ci la jigéen ñi di gën a am confiance ak doole pour créer entreprise yi nga xam ni mooy tax ñu contribuer ci développement jafe loolu euh, doon nañ ko junj waaw loolu doon nañ ko junj avant sax projet bi. ñun ñoo xam dañu doon liggéey ci programme yi doon nañ ko junj ni programme yi nekk ci Sénégal moo nekk mbali moo nekk Guinée moo nekk Cameroun et cetera mais recherche yi dafa wane dafa gën a wane loolu mais dafa wane tamit ni attention. programme yi ak projet yi ñu ngi leen di mettre en place c'est très bien mais zone bi ñu nekk dafa nekk zone de d'insécurité boo déparé fii Sénégal ba Cameroun y a des problèmes d'insécurité yoo nga xam ni boo ci jàppul aussi day tax programme yi ngay teg du yàgg wala programme yi sax dina ant du antu donc loolu tamit gis nañ ko ci recherche bi que ni bu ñu bëggee que zone bi liñ ciy liggéey pour que jeunes yi gën a liggéey jigéen ñi gën a takku ci création d'entreprise il faut que problème d'insécurité yooyu ñu jàpp ci fexe ba nga xam ni jafe-jafe yi am ci réew yi te loolu ñëpp xam nañ ko amul kenn ñu koy wax ñëpp a ci teg seen bët ñu fexe ba nga xam ni loolu dinañ ci gën a jàppandi ba nga xam ni insécurité du yàq programme yi nekk am yi ñuy mettre en place. loolu mooy tax ba liggéey jeunes yi gën a liggéey ba liggéey jigéen ñi gën a liggéey ba liggéey réew yi suñu koom-koom gën a yokk merci. maa ngi tudd professeur Madiagne Diallo maa ngi tudd Madiagne Diallo di professeur ci daara yi mag xam-xam ci ni ñuy xelalee nguur ak euh, ñi ngànk nguur euh, dañoo daje woon tey fii xam ne ñoo nekk Bénin Burkina Faso Cameroun bokk ñun ñëpp xalaat pour nan la borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yu kawe yi ak nan la experts yi a indee seen xam-xam jàppalee ko nguur ñëpp xam mi ngi def ci vision ci xalaat ak ci wuti ay moyen teg waaye fii jafe-jafe yi nguur gi am moom mooy euh, lu bëri ñi ngi koy euh, def ci sunu daara yu mag yi ci xalaat mais xalaat yooyu nguur gi amu ci accès jotu ci euh, xalaatkat yi itamit dañu am difficulté pour jege si ñi nga xam ni ñoo ŋànk nguur gi pour mun leen jébbal seen xalaat ndaje bu mel nii nag dafa jàppale euh, waa nguur gi di jàppale itamit euh, xalaatkat yi pour que kenn ku ci nekk xam njëriñ bi nga mën a amal sa morom kenn ku nekk xam lan la sa morom am te mun la ko jox ba mun la jàppale ci li ngay def loolu moom moo tax ñu ne xëyu ndaw yi ñu ne entreprise yu jigéen ñi politique yooyu nañ ci xalaat bañ ci xalaate wër nañu bene Burkina Cameroun Mali Togo jébbal nguur bu nekk lañ ci xalaat sant yàlla nguur bu nekk kontaan na ndax dañoo xalaat ci li nga xam ni ci la nguur gi nekk ndax xalaat ba xelal ba ba dàkk ci xelal mooy nga xelal nguur gi ca la mu nekk loolu moo tax may woo sama mbokk borom xam-xam yëpp yi nekk ci daaray kawe yëpp ak képp kuy spécialiste xalaat baax na mais boo xalaatee ci li nguur gi nekk ci nga koy gën a jàppale ndax loolu moom moo mun a yokk suñu koom. ndax mbir mi dina àddu incha allah mbir mi dina àddu parce que tey jii boo xoolee ndaje bu mel nii lu ëpp téeméeri nit ñëw nañu lu ëpp téeméeri nit ba ñaari téeméeri nit connecté wu nañu ci internet bi muy intéressé waaye boo xoolee organisation yi nga xam ni ñoom ñoo ñu wuyu si UEMOA ñëw na CEDEAO ñëw na euh, OIF ñëw na AIF ñëw na Banque mondiale ñëw na ambassade Canada ñëw na euh, Fonds de recherche du Québec ñëw na CRD yi ñëw na ñoom ñooñu sax financé événement bi ñu leen ci sant UNESCO ñëw na ONU Femmes ñëw na euh, organisation banque d'investissement CEDEAO ñëw na donc boo xoolee organisation yooyu mooy organisation yi nga xam ne ñoom ñoo lëkkaloo nguur pour jàppale nguur ci dimbali ko muy résoudre ay problèmes donc organisation yooyu ñun ñoom bu ñu déplacé woo ñëw ça veut que ni ñun li ñuy wax am na importance ça veut dire que ni gis nañu seen bopp ci li ñuy wax waaye gis nañu seen bopp itamit ci xalaat bi ñu teg ci kaw taabal bi gouvernement bi ci boppam bu du woon conseil des ministres spécialu tey bi di ngeen fi gis ministres yu bëri ndax ñoom ñëpp woo nañ ñu félicité ñu yónnee ñu sax discours ya ñu préparé woon mun naa citer ministre de l'enseignement supérieur mun naa citer ministre euh, des finances et du budget mun naa citer ministre de la justice ci boppam yónnee nañu message sans compter nag ministre ya nga xam ne ña nga Cameroun ña nga Bénin ña nga Burkina faço ña nga Mali ña nga Togo ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yónnee nga sa ndaw. waa waaw li ñu xelal nguur gi moom mooy rapport bi dafa wane ni am na ay secteurs yoo xam ne. nguur gi bugg na fa dugal loxoom mais xëy na xamul nan la fay dugal loxoom ñun war nañ ko yoon noo xam ne bu fa dugalee loxoom secteur yooyu dana fa mën a génn lu bëri. secteur bu mel ni transformation secteur bu mel ni agro euh, négoce secteur bu mel ni sport industrie sportive dañ ko war a créer Sénégal amu fi industrie culturelle amu fi ñuy yëngatu ci culture am na fi ñuy yëngatu ci sport am na fi mais industrie bi chaîne bi amu fi war nañu nguur gi nan la ñu mën a tegee industrie sport. boo seetee ndaw yëpp ñu ngi ci war nañu nguur gi nan la mën a tegee industrie culturelle war nañu nguur gi nan la ñu mën a tegee industrie boo xam ne dafay jóge ci statistique ci esthétique egsi ba ci habillement maanaam colin maanaam defaru maanaam euh, lépp loo xam ne mooy toppatoo yaram yooyu mun nañ ci xarañ chaîne la nag du di nga gis tey salon de coiffure yi fii gis tailleur fii mais industrie bi nga xam ni moo leen di lëkkale ñoom ñëpp ba nga xam ni kenn ku ci nekk dangay ñëw def li nga war a def loolu nekk luy produire euh, xaalis pour ñoom di produire emploi loolu amagul léegi nag ñun xelal nañu nguur gi nan la mën a créer ci tissu bu nekk tissu industriel maanaam mu nekk mbàjj moo xam ne ñëpp dañuy nekkandoo ci biir nguur gi nag gérer ko merci jërëjëf